mairie be can gi fo la tàmbalee midi bu jot wala mu tegal añ bi day ñew fi bo gisé soxna sé sama soxna la manam ndek rek manam muy café rek la doon togal mom lañu andal waye kon tan gi amna fu mu tàmbalee waye yëmut fen kon suñu borom yi xamni moy dimlé ca lamu mu am may ndakum yan ma inda ay kon dimal lolé yéna gi ci wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina la sunu borom waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni yónnu wala ci jullit yi lu nga dimbali leen kon ndimbal yooyu yéen a ci dima leen di ñaax mooy ginnaaw mën ñoo teye xale yi leen teye ginnaaw ngi ñëw di leen fekk si fii nañ leen teye buñ buñ ci ci mbedd yi waaw ku ko mënut maanaam fekkee mën ngaa dellu sa sa dëkk nga dellu fa ba jafe-jafe yi deñ ñu ñaan sunu bon tabaaraka taala réew mi ak réew yi ñuy wër yëpp jàngaro ji nga xam ne mooy si doomu aadama yi ñu ñaan suñu borom daqal nu ko daq ko ci réew yëpp ba bu nu ko dëggati fenn. ñii nag ay volontaire lañ daara ji moom volontaire lañ pour mën a dem ñu ngi jëm Touba si biir département Thiès donc dinañ leen yóbbu ba xam ne ñun ñoo koy wóy dinañ leen jox tamit ndimbal boo xam ne moo leen di gunge si yoon wi. dina leen jox tam ay produits yoo xam ne bu ñu demee bërëb yu ñu jëm dañ ko mën a désinfecté avant ñu fi jóge tamit test nañ leen ñoom ñëpp pour xool ndax xale yi wér nañu wala déet balaa ñu fa ñu yóbbaale feebar fa ñu jëm bu ñu demee tamit danañ leen suivre wax dëgg yàlla dañuy parent bu nekk tamit boo demee nga defee leen en quarantaine tamit ñett ñaari semaine 14 jours yoo xam ne nañ ko toog au moins ñu xaw leen a ber boo xam ne bu fekkee ne feebar nañ bu feeñee ñu mën ko mën a ñu mën leen delloo si waat wala yóbbu leen si ko docteur suñu feebaroon nag ñu génnaat duggaat si biir nit ñi comme nañ waroon mais daal li ñu bëgg a wax daal mooy du rek yem si daara yi ñuy yóbbu nii mais même ñu nekk si biir dëkk bi nañ téye xale yi si biir kër yi ñu téye xale yi si biir kër ku ko mënul nga delloo ko say ay mbokkam xale boo mënul téye di ko dundal hmm? nga delloo ko ay mbokkam parce que loolu tamit moo moo la jamono ci laaj suñ demee ba yeneen di jamono ñëwaat xëy na mën a delluwaat sa ne moom lañ doxalee. encore que lii CDPE moo koy def de l' enfance CDPE bi moo jiitu foofu feebar bi loolu wan leen nag am na si luñ doon def na sax loo xam ne moom même bu feebar amutoon warutoon mën a continuer baaxul donc moo tax CDPE bi ñu tax ñu utiliser ko muy organe boo xam ne amoon na déjà ñu utiliser ko pour mën a activité bi mais vraiment protection de l' enfance sàmm xale yi xale taalibe yi pour commencer. lu ñuy war la si jamono ju nekk mais surtout si jamono bi xam ne jamonoy coronavirus bu ñuy ñun fii teste nañ leen booy mu leer ne kis yi dem yóbbaale wuloo feebar feeñagul sa yaram mais comme ni ñu koy wax feebar bi day mën na jàngoro ji mën na nekk sa yaram quatorze jours yoo xam ne donc euh, doo feebar mais yaa ngi yor doomu jàngoro yi euh, moment bu nekk mën nga feebar li ëpp nag si di docteur yi nee nañ bu quatorze jours yooyu weesoo mën nañ jàpp ne amuloo jàngoro ji donc moo tax bu ñu demee foofu fi ñu jëm tamit dañ koy signaler fu ñu jëm mais bu ko doon yóbbu beneen département ñaari préfet yi dañuy liggéey ba pare fa muy dem ak fi muy jógee dañuy liggéey ba pare mooy lépp sotti ñu soog defar waaw que li ñu bëgg mooy bu yeggee foofu ñu mettre leen en na 69 donc ñu ngi yoo xam ne xale yoo xam ne tey war nañ jóge si daara ji rek dem. waaw mais nag daara yi bëri nañu biir Thiès fi dëkkul tamit bëri nañu yooyu ñu ngi koy def recensement bi képp koo xam ne dëkkuloo fi ñu proposé la nga dem soo ko nangoo xayrul boo ko nangoo ñu pousse la nga dem.